ginnaaw bi mu dellu seen Ndakaaru nga xam ni sax ay takk den ñoo ko indi kër Ousmane Sonko nag ak mbedd ya fa jëm yépp ñu rek baare ko force de l'ordre et de sécurité yi nag nekk rekk fépp ci mbedd yi ci rond bi. ci yoon wi bàyyiwuñu sax ruq yi. ñuy rek saytu dem bi ak dikk bi waaye tamit di rek saytu bu baax ñi nga xam ni ñoo ñoo ngir ñaxtu boobu boobule situation nag am ay njeexital bu baax ci njënd mbekk njaay mi fii ci cité góor gi waaye tamit ci dem bi ak dikk bi ci liggéeykat yi. riverains yi dëkkandoo yi yëpp kenn mënul génn doo mën a dem fenn wala bu bëggee dem ñu laaj la sa carte d'identité et ainsi de suite s'il le faut des fois sax am na nooy waxoo sax ñu la dégg ñu retourné la wala am na nu muy demee ñu jël dugal loolu du yoon. chaque jour da ngay nekk di xëy pour ñoo liggéey. ñu barricadé yoon perdre du temps pour nga dem def ci sa liggéey correctement alors que loo xamante ne amuloon benn danger amul benn problème bu ñu sukkandikoo ci ñenn ñi nag mbir moomee mën naa rek waral violence gën faa am di ça fait plus d'une semaine ñi ngi fii di taxaw ñu ngi koy naqarlu neexul ci xool te boo xoolee ba xool sax day inciter nit ñi pour mën a indi violence donc je pense que ni lii mën nañ di koy éviter quoi sinon rek am fi muy mujjee day day ñaaw te bu ñaawee ñu ñëpp ñoo ci naqarlu. policiers yi di fi taxaw. ñoom ñooy créer problème fi mu toll nii nag cité kër góor gi nekk rek su haute tension ndax it mbedd yi yoon yi ak fépp rek ñu rek baare ko loole sax am ay njeexital bu baax ci dem bi ak dikk liggéeykat yi waaye tamit ci ñëpp ñi nga xam ni ñoo rekk bëgg doxi seeni soxla.